Assalamualaikum, suñu mbokk internet yu Texcom TV Bamba di len di jaajëfal sa su nek ci tewlu bi nga xamne yeena yéen tewlu ñu koy ñu ñew ak yeen ci benen numéro spécial mode tabaski 2022 tay nak ñu ñew fi ci tilen set ci won fi wa ke Serigne Abdou Karim mbake Couture c'est papa papa nak mom mu doon xalé bi nga xamantene dafa xarañ lool ci walum ñew and ci ak équipe bu dynamique bu mën li ñuy def lu ci mel ni ñawu wala ñawu jigen robe tay bass obosanzo marinier. lo len si soxla rek daw len gaaw seti wa ke Serigne Abdou Karim Mbacke Couture c'est papa kon nag Serigne Xaadim suñ caméraman ñu ànd rek dugg ci biir xool papa lan la ñuy tegal tey si table suñu mbokk internet yi comme ni ngeen ko gisé ñu taxaw ak kenn si clientèle papa wa ke Cheikh Abdou Karim Mbacke couture kon nak euh, duñ def lu dul bàyyi ko rek jox ko kàddu gu mom mu présenter wu señ bi ñong lay ziar. ba ngi leen di delloo ziar assalamu alaykum mbokk internet yi ñoo leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajeufal seen liggéey bu rafet bi nga xam ci amna solo lol ah di témoigner ci papa man sama doom ndey la sama xarit la war yàlla bu dee ñaw rek fii ñu fi ñëw ku ne yaakaar bo boo da nga ñëwaat ndax gën ñaw yi yépp ci buntu bi ku ci nekk ca mom dafa fonk rendez-vous bu la joxé samedi samedi ñëwal samedi bo ñëwee da nga fekk euh, samedi bam la jox bo ñëwé yaay ya koy tarel waye mom du tarel loolu ma ko séré ci mom man mi di wax ak yéen maa moom ñoo jaakarlo ni waye nak musuma gis nit ñofi di ko taxaw wala nit ñofi jotté ak mom wala nit ñofi di di ak mom ci ñaw respecté na kaddom sàmm na place am mu tuddé ko wa kër bay Abdou Karim borom al akhlaq ñu ñaanal nak yalla may ko jamm yalla defal ko salam ci barke alxuraanul karim tabaski gi ni yalla ubbi ci ay wëssegam ba nga xamé ne ci ne ñepp fu way nek fu fa rek ci papa yaakaar naa kenn dootu ko présenter ci dëkk bi site internet bi nak ñoo leen di ñaanal ca kaw ta kanam ndax wax naa leen ne leen yeen ñi aduna leen aduna mo leen bëgg l'islam safo leen ngeen nek sagu fajur gep kan nak ca kaw kanam liggey bi rafet na macha allah jere ngeen jëf jere ngeen jëf jere ngeen jëf kon nak euh, mbokk internet comme ni ngeen ko gisee ñoo ni tok ak papa borom Baye Karim Couture xalé bi nga xamantene ni nii moo yëngal Joal nekk ki nga xamne dafa fonk tamit rendez-vous kon nak euh, duñ def luddul dul seigne sëñ papa rek euh, mu présenté wu seigne papa ñong lay ziar. waaw ñuy dolli ziar bu wër waaw ñu nuyu wa Joal Fadiouth di nuyu suñu papa ak suñu yaay ak sama soxna su baax sama baye bàyyi kër ga. waaw ak sama waa atelier yi may liggéeyal maa ngi leen di ziar bu baax a baax da parce que aw seen fay bu ma des fois damay tëdd ba heure man neex ñoo fi nekk di waar suba ngoon matin midi soir ñoom moom seen fay moom wax fa dëgg neex yàlla di sant waa kër Baye Abdou Karim bu baax a baax a baax ak sëñ Xaadim bu Baye Karim ñu koy sant bu wër a wër xëy nga taxawal bërëb bii ni Baye Karim Couture bërëb bi ma xool maa ngi depuis 2015 2017 nañ ci nekk di jaayante waaw ah, yow papa fan nga jóge ñëw fii nii man maa ngi jógee sama atelier ni jaay teranga atelier Moussa Anne moo ma jàngal métier muy ku mën ñaw moom wax fa dëgg ni xeela buñ ñëwee zawal buñ limee téer zawal moom boo limee benn yaakaar naa doo lim keneen te limoo ko moom wax fa dëgg ni xeela naka nga dundee événement tabaski bi 2022 événement ah macha allah de wax fa dëgg neex yàlla événement allah. ndax parce sa bopp. waaw maa ngi ci yëg sam bopp ndax parce niveau marié laa si teg si maa dund lu neex maa ñaw maa xapi waaw ngi cool clientèle ngay faral di gis. clientèle bi wax fa dëgg neex da nga gis façon nit ku ne. waaw da ngay gis des fois ñu métti ñu naqari deret des fois xam nga rek mais tamit liggéey moom boo amee benn objectif ne yaa am objectif ne nga bëgg a doon moom yow yaay yaay yaay yaay muñ daal ndax parce que liggéey liggéey neex na neexul ndax parce que nit ñi moom bu ñu la ba jox seen xaalis moom ñoom pour ñoom ñooy sa ndey ñooy sa baay mais yaay muñ rek. lan ngay gis ne moo nekk tendance ci tabaski 2022. tendance tabaski moo fa dëgg neex yàlla bëri na moom ay tissus yu rafet génn si macha allah ay jasneer yu rafet ay tissus perlage ay val borodé bëri na daal tissus yu si génn daal mënuñoo wax lépp. Hmm. lan ngay wax ñi nga xamantene ni ñom nga bokal sa place bi ni di bay Karim Couture. ñi mom wax fa deug ni xel amu seen fay bu may wax si ñom mom, damay est ce que sax duma ma tamit wax fa deug ni xel sama xalé mom amu seen fay mom wallahi amu seen fay ma sha allah même bu ñëw sama kër day ñaan faax sama kawlal tok ma maag ñoom moom amul mbindeef bu mëna dugg sama digënté ñi may liggéey sama client sama xalé et tout man. ñëpp daal atleet ñëpp benn nañ daal waaw. soxla woon waa waa Baye waa kër Baye Karim Couture fan la leen di fekk ak si ban numéro la leen di jotee. waa ñun ñu ngi en face Tilène supérette Ndebane booru mbedd daara ji waaw ku ñu soxloon ma nga ñëw fekk foofu noonu. Hmm. numéro téléphone bi 77 195 07 84. sing papa lan mo ne lan ngay wax clientèle yi nga xamantene ni mom ngay ñawal lan nga len di wax. clientèle da lu dul wax len ñu dal rek ta xam fi mom wax fa deug neex yalla dina ñaw lepp bay señ Tuubaa. waaw ni doy man des fois damay xulok ñom ñoom moom saf mom da fa des fois mom ñu ñew bëgg a sa digg bop bi mom moy lool duma ko nangu. da fa que duma xol rek may fay sa xaar rek bëgg a sama diggu bop bi wax fa deug neex yalla dañuy liggéey ñu tek ko par respect ma liggéey la si par respect tam nga dem moo nekk sa mot de la fin. ah xaw ma sa lu ma wax wallaahi instant yii moom dama kontaan trop xanaa nga jox sama xale yi ñu wax rek mais instant moom xamatuma lu ma wax. lu dul ñu eggale événement bi si jàmm ak salaam rek waaw sëñ Touba ak Cheikh Ibra eggale ñu lépp incha allah ñoom luñ tëralee suñu njaboot ak suñu yaay et ñëpp kenn bañ a mer daal client yëpp gis seen bopp loolu daal bëgg nañ ko macha allah. jàpp nga ne di nga pare balaa jour du tabas. incha allah am nañ ci yaakaar de. ndax parce que mom ñu ngi jaayante suba ngon matin midi soir ndax parce que 6 heures du matin dañuy wacc nelaw bay midi xéssi wat kon yaakaar naa am na ci yaakaar baax baax baax. kon nak euh, mbokk internet ni ngeen ko gisee ni ñoo nekkoon ki nga xamantene ni mooy borom Baye Karim Couture di papa di xale bi nga xamantene ni moom wajowal Joal yëpp weranteetuñu li tax ñëw mën ñëwam kon duñ def lu dul ngeen ñëw woo ko si adresse ba wala ngeen daw si ba tildeñ rek seet si papa kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax ok merci.